jërë ngeen jëf ci déglu ñu ci biir bus Dakar Dem Dikk bii woy leen di ñu déglu li gën a neex mi ci kanam. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. RFM Matin RFM Matin émission bi yeewaa Sénégal. Matin 7 h ñu dalal sunu gan Jean Léopold Guèye salaamaaleykum. waaleykum salaam monsieur Fall. ñu ngi lay gërëm ci teewaay bi di gërëm Georges Diatia Diop conseil technique nga ca euh, agence d' à la sécurité de proximité maanaam euh, bànqaasu nguur gi nga xam ni moo yitte wàllu ASP. yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi ASP yi nga xam ni démb ci dëkk yu bëri ci Sénégal wane nañ seen bopp seen ñaxtu seen i anam seen i payoor ak ñoom seen nu ngeen xayma ñaxtu goog nga xam ni daanaka wër na Sénégal euh, démb ci ASP yi. waaw oh, monsieur Fall euh, maa ngi lay gërëm di gërëm monsieur Georges euh, tout le personnel de RFM di nuyu aussi l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs yu seetaan Euh, nuyu waale en même temps tous mes collègues ASP à commencer par monsieur le directeur général donc euh, effectivement comme ni nga ko waxee on va dire que certains ASP c'est pas tous les ASP certains ASP effectivement jot nañu démb disons war seen bopp comme ni nga ko waxee pour euh, am ay doléances yu ñu laajte donc c'est vrai que direction générale daje na. pour effectivement évaluer li xew euh, bien que du loo xamante ne ni bett nañu mais euh, effectivement njaboot bi bu ci amee ñoo xamante ni peut-être euh, dafa am lu leen naqari ñu war ko wax effectivement il faut ñu toog seetlu ko déglu ko et puis xool yan solution lañ ci war a mën a indi mais liñ ci mën a wax d'abord c'est que di féliciter d'abord tous les ASP yi nga xamante ne ni Euh, depuis 2013 ñu ngi liggéey liggéey bu am solo ci réew mi xëy na looloo tax ñenn ñi tey fi ñu ci toll euh, ñu defe ne ah yaakaar sax ne xëy na seeni condition war nañ ko war mën a gën a te loolu ñëpp mun nañ ko comprendre ñëpp d'accord nañ ci et je crois que à commencer par le président de la République moom looloo ko tax a jóg. Euh, bépp sénégalais au de la l'ASP euh, mën na effectivement yeewu ci dëkk bi gis boppam ci li nga xamante ne ni moom la yëngatu à plus forte raison nag ci euh, sécurité donc li ma ci gën a mën a wax c'est pour dire que bon ASP yi nga xamante ne ni démb manifester nañu ak nit ñu manifester ak li ñu doon manifester mun nañu wax comme ci tubaab ne bon ils ont enfoncé une porte ouverte parce que boo xoolee euh, li ñu doon laaj loolu président moo leen ci jiitu boo fàttali ko en janvier deux mille vingt et président kenn forcé wu ko kenn waxu ko moom moo jékki-jékki mu gis liggéeyu ASP yi euh, am solo ci réew mi mu ne léegi euh, corps bi ma créé woon ci condition yi ñu ko créé woon. dama bugg bu ñu valoriser ko ñu créer un corps spécial corps spécial nag euh, liñ ci nam mooy lépp li nga xamante ni liggéeykat am na ci droit ASP yi am ko muy salaire muy euh, tout ce qui prestation sociale protection sociale bu yokk perspective de carrière. mais yow sëñ Gueye maa ngi lay doog a xàmme sa discours daa changé <laughs> yow syndicat nga yoroon di xeexal gardien yeeg agent de sécurité yi. Mhm. tey yaa ngi euh, féete ci nguur gi. di xeex gardien yi ak ASP yi. d'abord ASP yi c'est pas des gardiens. waxin la agent de sécurité lañ wax wax day agent de sécurité lañ wax. assistant te maa ngi lay doog a xàmme yow. Ah. assistant à la sécurité da ngaa changé Euh, ASPI c'est des assistants à la sécurité de proximité bokkul ak gardiennage privé effectivement. Euh, syndicaliste moom syndicaliste la rek. et ba léegi ba léegi je suis encore secrétaire général de mon syndicat des agents de sécurité privés. moo tax sa taxawaay am jiixi jaaxa am waroo. Euh, amul waroo boo toogee déglu parce que boo gisee. ASP dañ ko créer service de sécurité publique la. mu am ay tex texte yi du man maa ko def état bi mu ko def te boo gisee service de sécurité publique amul kenn kuñ ci may muy am nu muy doxale euh, beneen affaire bi benn ASP tey mënul taxaw ne état bi amel na ma lii bokkul ak service de sécurité privé yi nga xamante ne ni euh, amul benn bu nekk Sénégal bu ci nekk ci yoon amul ça n'existe pas alors que aujourd'hui l'État li nga xamante ne ni signé na ko ak agent yi amul mais amul benn question boo xamante ne ni. ASP gardien privé yi ñoo yem rek. ñoo yem 50 000 la ñuy fayoo kii mbaalu ko yées benn la rek. non liggéey bi sax du bëri li liggéey bi du benn. xëy na peut léegi Georges am na lu ma bëgg a laaj. waaw xëy na xëy ne ko xëy na peut-être yow sa gis-gis la parce que xamoo li ASP di liggéey yëpp. donc moo tax tey euh, foo tourné ci Sénégal commune boo dem ci Sénégal service structure publique boo dem ci Sénégal fekk fa ASP yi donc c'est des auxiliaires véritablement euh, au fonctionnement donc de la euh, du, du du service public. on a on a l'impression que yéen mm-hmm. euh, voilà da ngeen fulaalu leen ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñaxtu ndax quand vous dites que certains ASP ñoo manifesté. Oui, c'est la vérité. Je vous donne exemple. À Dakar, bu avez, rien que dans le département de Dakar, mmh. on a 1300 ASP. ñi ngi gis dem ci télé bi motuñu sax c' est une question de. xëy na ñoo ñëw fës rek am na ñeneen ñi nga xamante ne xëy na euh, peut-être euh, dañoo toog waaye ànd nañ ci la nga xamante ne moom la. Euh, ñeneen ñi teg ci taabal bi tax bu ñu gën euh, ci mbedd bi. xam nga xëy na nga wax mais li gën am solo mooy les faits même bu loolu amoon. mais yéen a commencé mbir mi peut man yéen a leen tiital parce que déjà. Hmm. avant ñuy manifester commencé woon ngeen di mën a se xam nga ASP yi tey du dem lañ commencé manifester commencé nañ ko depuis janvier décembre boobu ba léegi déggoo benn ASP buñ ci sanctionné. depuis décembre ba léegi déggoo benn ASP buñ ci sanctionné donc euh, au contraire fullaal leen moo tax euh, malgré li ñuy wax ils ont toujours eu euh, la possibilité de venir à la direction waxtaan ak kilifa yi wax seen soxla pas plus tard qu'au mois de décembre euh, pour pour euh, seen organisation Euh, ay manifestation ay journée yu war def mais DG jox na leen subvention boo xamante ne man personnellement ba ma nekk ASP ba léegi mosuma gis mu joxe ko ba pare dem assister ci seen euh, kii seen manifestation ainsi de suite et puis ñaxtu c'est normal je mu ko sax en tant que syndicaliste mais doo jékki-jékki rek euh, commencer dérouler plan d'action da ngay ñëw koy waxtaan ak sa kilifa. ne ko man lii mooy sama problème loo ci xalaat lii lañ bëgg a def loo ci xalaat surtout comme moom ak euh, suñ secretaire général yàgg nañu waxtaan ak ASP donc bu ñu doxalee nii pratiquement euh, ñun daf ñuy jaaxal au lieu de ñàkkal fay de bien au contraire daf ñuy jaaxal parce que dialogue bi musul dagg au contraire musul dagg man su ma gisee. Euh, ni ñuy manager ASP ak expérience bi ma am ci euh, par exemple dans le secteur privé comme yàlla ak yàlli considération bi ñu jox ASP moo tax depuis biñ ko créé ba léegi président ministre directeur généraux yi fi nekk xaar seen tànk dubee ci nu ñuy def ba améliorer situation ASP ci lañ nekk ba tey. ñaata ñaata ASP moo am ci réew mépp. actuellement on est à à peu près pour 9000 ASP. Sur les 13000 qu'on a recrutés, actuellement il y en a 9000 à peu près. Donc 9000 euh, yooyu ñoom le président bëgg reverser ñu ne am corps bu bees avec tous les droits euh, effectivement qui leur seront conférés. Maintenant euh, ça il l'a promis en janvier. Maintenant tout, tout le monde sait que les processus disons, de mise en place d'un décret, mais na se font pas à 24 heures. depuis le mois de... Quand le président na a parlé, euh, au mois d'avril 2021... Ci wolof euh, bi président waxee affaire u euh, corps spécial bi euh, au mois d'avril 2021 ñun presque pare woon nañu suñuy proposition jébbal ko kilifa yi ñu ko war a jébbal pour mu circulariser ko police gendarmerie et tous les corps ku ci nekk nag war ci def sa observation maintenant après observation yi ci la ñuy euh, xool euh, effectivement li ci baax liñ ci yokk euh, li ñu ciy dindi ainsi de suite parce que booy présenter texte da ngay présenter texte boo xamante ne ni on ne peut pas présenter n'importe quoi au président la république excusez-moi <coughs> n'est-ce pas maintenant loolu nag moo tax président ne pour être dans les délais prolonger leen encore un an et au plus au mois de juin ministre bi na fexe ba euh, texte yi yàmb ci loolu lañ nekk. mais en attendant loolu. naa li gën a am solo li gën a am solo. Mhm. te ñu war ko wax est c'est dommage ASP yi nga xamante ni ñoo nekk à la tête ñun gis ne ñoo nekk à la tête de ce mouvement loolu xam nañ ko. loo leen bëgg a wax foofu. loolu xam nañ ko li may wax nii wax nañ leen ko. mais waxoo dara ba léegi. no je veux le processus bi ñuy wax. maanaam création corps spécial ak liñ ci nam je me rappelle même euh, un, un fonctionnaire benn fonctionnaire fonction publique parce que na bëgguma wax turam fii am na ci koo xamante ni moo ci gën a fës ci seen euh, porte-parole yi euh, des nañ ko convoqué direction. fekk mu defoon benn faute ñu war ko sanctionné kilifa bi jéggal ko bi mu ñëwee euh, kilif euh, kilifam direct c'est-à-dire le directeur des opérations ñoo di ko yedd monsieur Touré boobu nekk euh, fonction publique mu may dégg ñëw fekk wax ji ak li mu doon réclamé ak yooyu mu ne ko mais yéen ñii li ñuy réclamé wala ñii li leen di kaasal ñun ñii fonctionnaire amuñu ko ndaw soosu tey moo nekk à la tête de ce la ay et elle courant moom ak ay yeneen ñu ñooñam donc quelque part daf ci am loo xam ne moo tax sànq ma doon wax naan euh, dañu enfoncer une porte ouverte dañu fekk loo xam ne nit ñaa ngi ci mais nag c'est vrai que euh, loo xamante ne ni yembagul mënuñu ko publier ñëpp di ci wax mënoo nekk syndicaliste ba pare jiite syndicat ba noppi di attaquer ñoo xam ne dañuy dañuy ñaxtu itam euh, Léopold Guèye mais monsieur Fall fii ba léegi attaqué wuñ fi kenn dañuy expliquer les faits. on dit si nga xam ne moo jiite ñaxtu gi. non am na ci droit ni keneen amee droit ni nga. ni nga def ni nga yàgg def bi nga nekkee ci privé bi. non dama ne ñi nga xam ne ñoo jiite c'est pour mu leer ñoo jiite mouvement bi du ŋàññi de je de fait moo tax moo ne les faits sont importants defuma jugement defuma commentaire j'informe parce que ñun fi ñuy wax tey dañuy opinion publique bi moo tax ñuy wax. ak suñu collègue ASP yi nga xam ne peut-être am na loo xam ne comprendre ruñ ko dama ne ñi nga xam ne ñoo jiite mouvement bi am na ci koo xamante ne ni loolu lu ma fekkee la teg nañ ko ci table expliqué moom ci boppam mu ne ci gémmiñam xamee wuñ ko woon nii léegi nag ñooñu bu leen gisee ñuy def lii tey effectivement il faut se poser des questions du question ngañ c'est la vérité. pour yéen dañuy politique wala ñoom seen. c'est c'est xam nga agence bi politique intéresé wu. loo bëgg a wax foofu lan ngeen njort ne moo tax ñoom ñu waat ba xam nga Sénégal boobu xëy na moom lu mu mu bindoo rek ku nekk ak euh, sa sa conscience ku nekk ak euh, xëy na ni nga gisee àddina ku nekk ni ngay doxalee ku nekk ni ngay défendre sa intérêt ñun ce qui nous intéresse c'est pas de faire plaisir ou bien euh, wala tooñ wala neexal nit li ñu intéressé mooy mën a nekk dans des conditions yoo xam ne dinañ mën def suñu liggéey. correctement population yi gën a am satisfaction ASP yi seen situation di gën a améliorer la preuve cinquante mille francs yi ASP yi di di di ñaxtu li ci direction teg direction def ci teg mutuelle de santé c'était pas prévu par le budget il a fallu faire preuve d'imagination euh, les bus les ASP rentrent dans les bus de façon gratuite c'est l'ASP qui paye c'était pas prévu par le euh, budget Sénégal prévoir euh, les formations qui ont été faites une ASP un métier c'était pas prévu par le budget ASP ñoo xalaat ñu ne ah lii war na baax ci ASP yi ñu def ko euh, directeur général même ñi nga xamante ne ni par exemple ci mutuelle bi dañuy am ay situation yoo xam ne c'est difficile li ñu war a fay sax vingt pour cent yi parfois moom ci boppam pour na pas dire presque toujours moo leen ciy jàppale moom ak personnel am donc yooyu yëpp c'est bon à dire. mais en attendant. en attendant en attendant mise en place corps spécial boobu. est-ce que waruñ leen revaloriser ci wàllum payor cinquante mille ñu yokk ko. parce que bu ñu xaaree. ay euh, mise en place corps spécial bi ñoom cinquante mille francs rek li ñu xel di. wéy liggéey le but le but du corps spécial. xam nga dañuy njott rek de président moo wax président bu waxee ñun dañuy jàpp ne li mu wax nii ah ci loolu la mën a sukkandiku. te ñun ñëpp ci loolu la ñuy liggéey ak commencer par le directeur général donc effectivement nit ku nekk yaa ngi ñaan loolu la jëmale kanam loolu mun nañ ko comprendre. monsieur Fall mi ngi wax affaire u syndicat euh, on a beau être syndicaliste mais on doit le faire dans le respect des lois et des règlements man kenn mësuma dégg ma jalgati yoon parce que dama am lu may kaas mësul am donc euh, au niveau de la l'ASP Euh, normalement effectivement tout le monde aussi se doit de respecter les lois et léegi payoor gi nga xam ni. payoor waxtu bi moo jeex mais payoor gi nga xam ni moom la ñuy kaas cinquante mille yi. bu fekkee yeeseel li ngeen bëgg a def def nañ ko. ba am léegi euh, benn corps spécial ñu war leen fa yóbbu ñoom neuf mille ASP yooyu la. Mhm. Euh, payoor gi bu jógee ci cinquante mille fu mu jëm. en tout cas def nañ ci ay proposition ba moo tax ma ne la sànq le monsieur de la fonction publique muy wax ak. kenn ci seen dirigeante yi daf leen ne ñii liñ ñu leen proposé ñun sax amuñu ko et je parle en connaissance de cause parce que même le secteur privé bi nga xamante ne nii fa laa nekk ñu defal leen convention collective boo xamante ne sax baaxul ñun si ñëwuñ ko euh, li ñu proposé pour ASP yi ak ñun sax amuñu ko en plus aujourd'hui on est en plein dans une situation de préparation de ce corps spécial là parce que direction générale taxawul le directeur général a Et on les en remercie, le SEMGA, le haut comme Et c est, c est, c est, ces structures-là sont en de commencer à nous former pour effectivement former les ASP à leur future mission. donc fi mu ne nii euh, ñu ngi am yaakaar bu baax que fii ak juin il y aura encore des formations qui vont permettre aux ASP d'être prêts mhm. mois de juin pour remplir leur future mission dans jërëjëf de, Jean, de travail Jean-Léopold Guèye euh, technique euh, en sécurité ci agence de la sécurité de proximité di ASP jërëjëf Georges. ñu ngi nuy Fati ak ñi mu toogal ñu yendu ak jàmm. ñu ngi lay fay di nuyu également ñi nga euh, nekkal suñu confrères yi nekk foofu ca rajo Futur Média ca Médina naka noonu auditeur téléspectateurs lecteurs ci gàttal euh, képp kuy safoo groupe Futur Média euh, ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay <laughs> comme niñ koy defee Chérif teyel sa téléphone bi ñaareelu pàcc bi dugg nañ ci baba euh, Babacar doon dalal Jean Léopold